waa xam nga affaire Palestine bi nga wax yàlla dogal na mu ngi tàmbali au moment de la création de l'État d'Israël en 1948 xam nga 48 ba 2023 daanaka 75 euh, ans la kon mel na ni que ñun ñi fi toog yëpp euh, kenn si ñun wul woon àdduna te boo moytuwul bon ñaanuñu ko yàlla dinañ fi jógee bàyyi ko fi suñu doom yi ak suñu sët yi continuer di ko mettitlu loolu moo tax nag mbir yu mel ni su amee nga xam ne dafa dem ba am une dimension internationale amel nañu ax ñun adultes yi au plus jeune bu fekkee dañuy def rétention d'information duñu leen wax li am ba soo moytul avec le développement des moyens de télécommunication te saay-saay yi ci moment yi la ñuy profiter pour def de l'intoxication soo moytul seytaane dana ñëw këf seen xel ba ki nga xam ne moom la ñu noot toon ko nangu suufu maamam di euh, Palestine soo maytul am nay xale yuy dem ba jàpp ne Palestine moo tooñ ba topp ma riirandoo bi bi médias occidentaux yi di euh, di baaxee dal di mujjee taxer la Palestine d'état terroriste kooku erreur la moo tax li ngeen di def dafa am solo ndax ay wune balaa nga cee am taxawaay da ngay fexe ba remonter à la source pour que xale yi euh, bokk ci génération montante bi doog a xam la ka sabab lan la yàlla dafa dogal ci première guerre mondiale bi guerre mondiale bi mu ngi démarré en mille mille neuf cent quatorze booba dafa amoon diwaan bu yaatu bu ñu tudd euh, euh, l'empire ottoman dafa yaatu nag boo ko xaymaa ci tolluwaay moo ëmboon Liban ëmb Syrie ëmb Palestine ëmb euh, Égypte ba Arabie guerre ba nag déclenché empire ottoman daal di dem def alliance ak Allemagne l'agresseur waaye c'était un mauvais choix parce que empire français ak empire britannique dañu lëkkale seen doole dal ci kaw empire ottoman mu ànd ak Allemagne yi daal di daanu màbb empire ottoman amatul si la européens yi daje nag daal di ne waaw léegi nañ nañu séddoo Moyen-Orient alors ci noonu ci la ñu jël euh, Liban ak Syrie placé ko sous mandat français dal di jël euh, Palestine Égypte ak Arabie placé ko su mandat britannique ñooñu nag nekk kon des des colonies françaises d'une part et britanique de l'autre voilà situation boobu moo continué nag ba deuxième guerre mondiale bi éclaté en 1939 la ci am ci lu ñaaw yëpp ñun ñëpp jàng nañ ko ba ñu nekk ay tuut tànk ci suñu livre d'histoire mooy dafa am xeet bu natt bu metti dal muy xeetu juif ki indi woon ay wi di Hitler avec sa politique hégémonique raciste fasciste sanguinaire dafa jàppoon ne xeetam ñu di ko wax race aryenne mooy xeet bi gën doon na wax ni sax que c'est le peuple élu de Dieu nee na ku dul race aryenne nag particulièrement ñu ñuul ñi les gitans les juifs ay sous-hommes lañu c'est-à-dire ay nito di lañu te mérité wuñu de vivre sur terre dañ leen war a éradiquer waaye nag mu gën ci singali woon nag juif yi voilà loo tax nag dontelee daan nañ ko bi force alliée yi dajee ba guerre bi jeex en 1945 waaye dañu découvrir loo xam ne horreur la mu di camp de concentration yi la ñu fa dajale ci ay euh, prisonniers juifs gazé leen lakk leen xayma nañ ko ci 6 millions mu daal di am nag des survivants yoo xam ne amuñu dëkkuwaay ndax ba leen euh, Hitler di dajale foofu ci Allemagne ci camp de concentration yi pour lakk leen dafa leen jëlee ci ay pays différent donc il y avait des juifs d'origine française ay juifs d'origine euh, polonaise d'origine autrichienne et cetera kon nag bi nga xamee ni que euh, guerre bi jeex na ñooñu amatuñu woon dëkkuwaay alors comme que amuñu dëkkuwaay nag léegi Nations Unies daal di daje daal di ne ce qu'on va faire ne serait-ce que pour des raisons humanitaires ñii nañ leen utal fu ñu fu ñu dëkk nañ leen utal daluwaay alors mbootaayu réew yi nag daal di mandaté Nations Unies ne ko bàyyi nañ ko sa loxo Nations Unies ne waaw comme que empire ottoman daanu na dëkk yi ko composé woon xaw nañu am ku ci nekk as autonomie mu ne daal Palestine mel na ni moo gën a jàppandi pour ñu fat fa les survivants de coste juif mu di la Palestine alors Nations Unies nag daal di xaatim ne kon Palestine dañ koy partitionner en deux états lii état arabe la mooy fii Palestine nekk tey lii état juif mooy fii euh, euh, Israël nekk tey nee nañ nag sauf la ville de Jérusalem donte la ci diiwaanu Palestine la ne ah réew yi ne waaw lu tax Jérusalem di ci bokk mu ne Jérusalem bañ nañ ba di ko surnommer la ville trois fois sainte naka jekk boo fa demee am na un grand quartier chrétien boo xam ne fa la benn bërëbu euh, ziar pour suñu mbokku chrétiens yi ñu di ko wax le saint sépulcre te ñu jagleel ko Seydina Insa Jésus Christ fa la ne Jérusalem Est fa le mur de lamentation ne mooy daanaka kaaba juif yi ñoom dañ fay aji di fa ziar Jérusalem Est ba tey fa la le troisième lieu saint de l'islam nekk mu di masajid al aqsa parce que xam ngeen ne l'islam suñu borom dafa xaatim euh, ñetti lieu saint muy masajid al haram mooy fi kaaba gi ne masajid al nabawi mooy fi Seydina Mohamed tëdd sa makkatal mukarrama medinatul munawwara sa medinatul munawwara et il y a masajid al aqsa mooy fii sang bu tedd bi defoon euh, riñaan bi te suñu borom wax ci wax yu daw yaram ci suratul isra mu yëg sur le dôme des rochers suñu borom dekkalaat yonente bi yëpp yonente yëpp mu jiite leen daal di def rañaan bi mu di la l'ascension céleste pour dem jëli julli yi kon Nations Unies ne kon dëgg la dañuy opte pour une solution à deux États waaye Jérusalem nañ ko bàyyeek son statut international communauté internationale bi yëpp ànd ci loolu ba tax na tous les chefs d'État américains yi nga xam ne ñoom ñooy le principal allier des des Israéliens depuis euh, John Kennedy jaar ci euh, euh, George Bush père George Bush fils Jimmy Carter Bill Clinton ba ci Obama ñëpp tënku ci loolu mu di la résolution 194 ak 242 ba ñu demee xaatim tamit les accords de Camp David en 1979 foofa ca États-Unis te Anwar El Sadat teewaloon fa les intéres arabes Menahem Begin teewal fa juif yi ñu dëggal ko ne il faut une solution à deux États ba ñu toogaatee euh, presque dix ans plus tard les accords d'Oslo Oslo mooy capitalu Norvège nga xam ne Yasser Arafat moo fa représenté woon la Palestine euh, euh, kii nu mu tuddati premier ministre israélien bi moom tamit représenté woon fa Israël ñu daal di xaatim dëggalaat ne nañu def une solution à deux États waaye bu kenn laal Euh, Jérusalem est waaye ñoom ba ñuy def loolu bien que chef d'état américain yi fi jaar yëpp depuis Kennedy ànd nañ ci waaye sooraale wu yoon ne en 2016 dana am président bu doy waar buy falu mu di waaw Donald Trump ñëw Trump ñëw wax lu yéeme boole si jëfe ko dafa ne pendant la campagne électorale de 2016 comme que dama promettre woon à à l'électorat américano juif que boo leen ma falee danaa leen delloo Jérusalem kon nag yàlla dogal na falu naa la ma waxoon maa ngi koy jëfee dal di xaatim dal di ne États-Unis décrété na nekk Jérusalem léegi juif yi ñoo ko moom rek adduna bi yëngatu manifestation yi d'abord foofu ca Palestine kenn xamul ñaati nit a dee sans compter les autres pays parce que nee nañ kii dafa viole tout genda diplomatique bi nga xam ne tous ses prédécesseurs dañ ci tënk woon lépp ndax bëgg jàmm une solution à deux états et ñu préserver le statut international de Jérusalem waaye daal bi fi Trump nekkee 2016 ba bi mu fiy jógee en 2020 Palestine Israël ay wi di jolli rek dañuy noppaloo ko ay huit mois un an ay wi jolliwaat alors ay wi nag li tax mu gën a tar mooy bi Donald Trump defee loolu euh, président euh, premier ministre israélien bi Netanyahu dafa ñëw xëpp ci essence moom dafa ne non seulement ñu ngi gërëm américain yi jox ñu la nga xam ne ñun ñoo ko moom waaye ñun ñu ngi ciy profité wax waa Knesset Knesset c'est le parlement israélien pour que ñu décréter désormais Jérusalem comme la capitale officielle d'Israël daal di ne nag léegi ñu ngi ñaan représentation diplomatique euh, étrangère yan nekkoon Tel Aviv ancienne capital bi ñu ngi leen di ñaan ngeen toxu ñëw Jérusalem dëkk yu bari lànk ne no ki c'est un coup de force jaay doole la kenn du ko nangu alors euh, maa ngi ñëw nag li déclenché ay bi alors ay bi nag li ko déclenché mooy 2021 bi dafa am leneen lu euh, gouvernement israélien def mu gën a tàngal xol yi ndax xam nga ñëw nit ki déjà ñu fekk la sa suufu maam wax naa ko sànq que en pendant euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale comme que juif yi dañu tumuranke woon jóge ci natt gu metti ak mbugal gu metti rey yi ñaaw yi leen it leen rey ñii mu lakk leen ñii mu gazé leen et que survivants yi amatuñu fu ñu dem xam nga fa la Nations Unies bi ñuy waxtaanee entre les les les grandes puissances si la ñu décidé ne dañuy jël Palestine dagg ko am lu ñu leen jox palestiniens yi nangoon nañ ko laaye leen biir ndeysaan ndekete xamuñu ne fa la seen musiba di tàmbale nga man li yow rek ma daal di jóge bitim réew nekk fii doxandéem euh, jaaxle aw ma fu ma fanaan aw ma fu ma lekke aw ma fu ma naan ma ñëw ne la jànkere maa ngi si problème nga ne ma garaawul kër ga yaatu na jëlal pantre bi ma abal la nga abal ma pantre bi ma toog fa ñëw ne la waa man de dama sama benn jarbaat day boo xam ne moom tam nga ne amul problème na ñëw nga toog toogati weer ma sama nijaay ñëw toogaat sama benn rakku pap ñëw ba yàgg am bës nag sama soxna ñëw ma ne ah jànke day mënuma nekk fii ak soxna si te ñoom ñett ñi ba mu ne nga ne ma amul problème ñoom nañu fanaan ca néegu xale yow na nga jël néeg nit ñi di yokk nit ñi di yokk yow sa baax ak sa laabir lu ma wax rek nga ànd ci ñu dem ba léegi kër ga ma xatal la fa yemuma ci loolu ma indi jikko baadoo la bu bon attaqué la histoire sosol la nit ñi ñëw waa koñ bi ñëw ma ne leen jànke moomul kër gi daal di génn ay këyit police ñëw par parloo dikk ñu génn la dóor la yeew la foqati sa kër nangu ko xoolal loolu li mën a jur ci tàng xol loolu moo dal palestinien alors kon nag je termine euh, ñu dal di jël mesure Netanyahu ne léegi nag doomu Israël bépp boo xam ne amoon nga ay maam wala ay maamaat yoo xam ne am na am nga njorte ne bërëb sàngam ñoom ñoo fa dëkkoon même bu fekkee fekkul woon nga juddu te nga mën a indi kayit mu nekk firnde boo xam ne lu muy néew néew dana ko dëggal alors jox na ñu ndigal le pouvoir judiciaire boo demee ñu jox la sa titre de propriété nga ñëw dëkk moo tax nag mois de mai bi passé am na trente familles euh, palestiniennes dëkk euh, ay ay béréb trente ans ñi cinquante ans ñi fa la ñuy juddoo ba màgg fa ba takk fa jabar noonu lañu leen expulsé de force alors euh, ay palestiniens ay israéliens jël ko dëkk bi na tàkk alors léegi nag ñu ngi say deux mille euh, neuf cent morts dont une majorité de palestiniens et dont soixante-douze enfants muy lu ñaaw rawatina maintenant tout tous les médias occidentaux yi nga xam ne dañu amoon euh, dañ leen xàmmee woon une posture euh, euh, généralement pro-sioniste dem nañ ba nangu ne su guerre bi duré depuis soixante-quinze ans c'est parce que Israël moo occuper de manière illégale la bande de Gaza la Cisjordanie et Jérusalem-Est. pourtant occupation illégale boobu am na état yoo xam ne dañ leen jàppal tànk di leen di dooleel. waa mooy euh, américain yi xam nga mooy jàppal tànk bu ànd ak tuuti affaire nafiq parce que at yële passé Israël moo doon dóore di songe waaye ñoom dañ daan condamné du bout leer lèvres non c'est pas normal hein, c'est une violation des droits de waaye tey Hamas fayu rek ñu jóg c'est des terroristes loolu nag nekkaat beneen injustice parce que bu yàggu rek gis nañu Ukraine jànkonte woon ak même problème que bii palestiniens yi jànkonteel ñoom tamit dañu doon taxaw jàmmarloo ak Russie yi leen bëggal néewal doole jënteel suufu maam ba ñuy taxaw ne du fi amee ñi ngay wax pays occidentaux yi dañu jóg ne leen téye leen mu dëgër vous êtes des résistants palestiniens yi jóg ñoom tey ren ñu teg leen lu mel noonu ñu taxaw ne du fi amee pays occidentaux yooyu wax ne Ukraine c'est des résistants daal di ne palestiniens yi yéen par contre vous êtes des terroristes loolu moo yokk xol yu tàng yi ay yuy continuer di jolli wala léegi nag Israël jaay na doole ba def fi loo xam ne gëj na am ca Moyen Âge ba ñëw ne maa ngi dem occupé yu dëkku jàmbur te en attendant ma ñëw danaa ko placer sous blocus total coupé nañ ndox bi coupé courant bi coupé gaz bi et puis les deux millions cent d'habitants nee na leen jógee leen fa parce que ñu ngi préparé benn offensive terrestre kenn mësul gis li communauté internationale bi yëpp a toog di xoole alors Sénégal nag yàlla dogal na euh, suñu réew dafa yàgg ràññeeku ci dénoncer le coup de force bi israel def ci suufu jàmbur boole ci di leen tooñ ak di fa tuur deret guddeeg bëccëg ba looloo waral dès 1971 le premier président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor amoon fii euh, jàll ndam lu rëy ndax booba Nations Unies essayé na euh, les États occidentaux pour indi dal ci ay wi euh, Senghor jóg proposé ay naataangoom chef d'état africain pour ñu créer benn comité des sages ndax ñoom itam ñu wasalu ci àq parce que adduna bi léegi tout est tellement lié fu tàkk rek euh, ay wi day mujjee euh, am lorange yu mu jur feneen du guerru Ukraine baa ngi nii demoon nañu ba ñu ne mburu mi dañ koy yokk ndax blé bi jóge foofu géej ga mu war a jaar Russie yi dañ ko baare kon amul fuy am ay amul nga mën a toog ci ruq ne sama yoon new ci alors Senghor jóg ànd ci ak euh, euh, le président Ahidjo Diop bu Cameroun ànd ci ak Mokhtar Ould Daddah président euh, Mauritanie ànd ci ak Yakubu Gowon bu Nigéria ak le président congolais Mobutu Sese Seko Senghor nag ñu jiital ko mu nekk le président de ce comité des sages yàlla dogal na ci seen jéego fa la ñu constater l'accord d'Israël jamono boobu benn premier ministre bu jigéen moo fi nañu ñu di ko Golda Meir ñu daal di d'accord pour les premiers retraits des territoires occupés retiré wu ñu ci lépp nag waaye am na aw laaj boo xam ne euh, accepté nañ ne dinañ ko bàyyi delloo ko palestiniens yi loolu Senghor a ko fi am kon muy un un premier leadership. deuxième leadership qui fait que Sénégal amul droit banque loxoom ne sama yoon newu ci mooy bi puissance occidentale yëpp catalogué le leader de la résistance palestinienne. Euh, Yasser Arafat de terroriste Senghor moo jóg déroulé ko le tapis rouge daal di ko recevoir fii en visite officielle en 1971 en 1977 le premier pays africain bu recevoir Yasser Arafat ba bi muy ñibbi ñu ni ko gunge ji aéroport Sénégal dafa jël passeport diplomatique Sénégal jox ko ne ko fu la neex nga tukki bu la neexee sax nga ne Sénégalais nga troisième leadership bu Sénégal am ndax yàgg ràññeeku ci dox tànku jàmm ci mbir mi at mooy at ba sa Sénégal defaral palestiniens yi lu ñu mësula am dans les pays d'Afrique noire mooy ñu may ko mu ubbi la première représentation diplomatique fii ci Sénégal yàlla dogal itam ñi nga xam ne dañu nekk dans des organisations de la société civile et des ONG daan ci yëngatu ku mel ni le professeur Malick Ndiaye ku mel ni Sidi Lamine Niass ku mel ni le fondateur de l'ONG islamique Jamar Abdou Latif Gueye di tukki di dem ci ay conférences et cetera ñu dem ba ci benn jataay la communauté internationale ak tamit la coalition internationale pour euh, les droits inaliénables du peuple palestinien dal di ne daal euh, Sénégal yàgg na ci xeex bi kon foog ñu cëral leen si Sidi Lamine nag ndeysaan rahmatullahi alayhi xeex na ci bu metti nee na Sénégal foog ñu jox ko cër waaye gis nga ko ci ñàkk ki ñaanam bi gaa yi décroché benn post ci bureau bi muy le poste de vice-président du comité Al Quds section Sénégal mu daal di am laa biir reculer bàyyi rakkam Abdou Latif Gueye jël poste bi kon nag en 1989 le président exécutif de Jamra Abdou Latif Gueye ci laa biiru Sidi Lamine Niass moom la ñu nommé woon le président du comité Al Quds alors dans tout ça nag depuis Senghor jaar ci Abdou Diouf jaar ci Abdoulaye ba ci Macky Sall le Sénégal a toujours été reconduit aux Nations Unies et par les Palestiniens eux-mêmes au poste de président du comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien alors ba léegi Macky Sall moo yore boobu fonction moo tax ñun nag ñu ngi profité waat ci euh, antenne Sénégal ñaan président Macky Sall ci njëkk ak teranga adduna bi yëpp ñu ngi ko teg bët parce que bu mu fàtte ne qu'il est le président du comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien ñu di ko ñaan et c'est son droit le plus absolu ak fi Sénégal jaar yëpp ñoo fi jëkk teral Yasser Arafat visite officielle en 77 ñoo ko fi jëkk teral jox ko passeport diplomatique ñoo fi jëkk a teral le chef de de de l'OLP Yasser Arafat mu ubbi fii une représentation diplomatique ba noppi ñu reconduire ñu à chaque fois au poste de président du comité Al Quds bi Abdou Latif Gueye jiite ak tamit le président Abdou Latif vice président la woon alors Macky la nekk le président euh, du comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien kon nag le Sénégal amul droit banque loo xam ne suma yoon new ci kon nag li li Macky Sall mën a def te état palestinien yi ak état euh, euh, euh, ki nu mu tudd juif bi mën nañ ko ci respecter rus ko ci mooy na leen ñaan nañu arrêté rey bi parce que nit ki balaa ngay naan dañuy toog autour d'une table discuter rey bi na arrêté rawatina rey yi ñu ay militaire lii Netanyahu def du dara lu acte de vengeance waaye ki ngay venger wu gisoo ko Hamas ñoom seen bopp dañuy làmbaatu xamuñu fu mu ne attaque ba ko jiitu jógoon na mais seen service de renseignement yi dañu localiser benn immeuble de treize étages boo xam ne Al Jazeera moo ko moom mu di la chaine de télévision international euh, qatari daal di ne d'après leur enquête deuxième ak troisième étage dañ ko jagleel benn euh, poste de commandement bu waa Hamas ñu daal di jóg bien sur jël nañ au moins la précaution de demander ñi occupé woon immeuble bi nañ fa jóg daal di ko tiim ak avion f nga xam ne dañu am des systèmes de visée millimétrés visé ko au laser peut-être ou à l'infrarouge door fa ay missile mu daj daj daj fondement wu immeuble bi immeuble treize étages yu mab fekk Hamas kenn newu fa kon ci lambaatu la dëkk waaye làmbaatu boo xam ne li ngay rey foo reyee cent ci population civile bi nga rey ñaaru Hamas kooku c'est un génocide qui ne dit pas son nom alors Sénégal mën na yëkkati kàddoom moo xam communiqué lay def moo xam président Macky Sall dafay convoquer l'ambassadeur de Palestine bi nekk Sénégal wax ko nos quatre vérités ne ko le Sénégal depuis 1971 a toujours été a toujours été uni et et solidaire à la cause palestinienne daal di ko wax nag suñu revendication lii la arrêté leen population civile yi ngeen di rey boo leen demee nag ba dal. comme que yow Israël am na ay otage yoo téye palestiniens yi am otage yi ñu téye donc de haut grade militaire boo ñu demee ba dal na ngeentoo toog procéder à des échanges de prisonniers ku nekk mën ci gis sa bopp alors négociation yi mën a tàmbali incha allah.